préoccupé Sénégal yi bi ñu Sénégalais yi bi ñu xëyee ndox mi di sotteeku mooy est-ce que dina am ñu mën a fanaan seen kër tey Sénégalais am na Sénégalais yu nga xam ne discours bii préoccupé wu leen li leen préoccupé mooy est-ce que dinañ mën a toog seen kër est-ce que ndox mi du leen fa fekk loolu mooy seen préoccupation donc mënuma mënuma nekk doomi askan wi commencé waxtaan wi te duma dugg ci ñetti point yooyu aujourd'hui ce n'est pas Macky Sall qui entre dans l'histoire c'est le peuple sénégalais qui le peuple qui a exercé c'est le peuple sénégalais qu'il faut saluer. da nga yaakaar ne c'est une décision qu'on lui lii mu respecté nii nañu waxante dëgg c'est une disposition constitutionnelle qui date de 2000. constitution bi maître Abdoulaye Wade andi woon bi nga xam ne dafa def réforme 2007 je pense avant 2007 def réforme ne dëkk bi bëgg na léegi ñaari mandat ñu yemale ko ci. cela fait dix quinze ans ñuy daw ci respect loolu on peut pas être dire que ñun nous sommes une grande nation nous sommes une république ba noppi ñuy fecc di tëgg dal parce que un homme a décidé de respecter la constitution c'est pas un débat li nga xam ne bëgg naa véritablement ñu ñu mettre ko avant mooy Macky Sall n'ira pas à ces élections parce que il sait pertinemment que le peuple sénégalais est plus fort que lui il sait pertinemment que le peuple sénégalais est plus sage que lui il sait pertinemment que sénégalais yi gonek mbooyee dañ koy xaal ca taatu ndaa la ndax kat leçon bu ñu jox sa maître yow élève bi foo jaar respecté ko Macky Sall son maître c'était le maître am c'est maître Abdoulaye Wade un grand homme un grand économiste quelqu'un ku nga xam ne li mu def ci bilan yóbbu indice développement humain li mu réalisé ci réew mi très peu de personne l'ont réalisé pourtant malgré tout ce bilan chantier yëpp 2007 mu dem élection am près de 57 pour cent premier tour ba mu briguer trois euh, troisième mandat lan moo ko ci fekk il est passé de 57 pour cent à 30 pour cent. 35 là à 35 pour cent. là où le maître a pris une leçon du peuple sénégalais et il l'a accepté avec grandeur l'élève ne peut pas se permettre d'affronter ce peuple su ko forcé woon tam day dem élection gars yi dóor ko donc loolu mooy xam donc aujourd'hui c'est cette muraille boobu parce que le peuple sénégalais conscience citoyenne ak res ak peuple peuple bi gëdd gi ñu jox seen constitution moo gën a fort ay maire yu ko wër naan ko demal moo gën a fort ay constitutionnalistes yi nga xam ne dañu dem vomir lépp lu ñu jàngale woon parce que dañu yaakaaroon ne Macky day dem mais le président a été lucide c'est un homme qui a regardé la situation xam ban peuple la amal affaire il sait que les moom lu mu mag mag mag peuple sénégalais bee ko Macky Sall luñ ko yëkkati yëkkati et et amuñu problème pour wax lu baax lu mu def il peut être un grand sénégalais amuñu problème rek ne loolu mais bu mu fàtte un grand sénégalais provient d'un grand peuple te nit loo mag-mag sa askan féete la kaw su demoon élection fi wàdd faqasalu Macky Sall su fa yeggee dafay suru loolu mooy réalité waaw d'accord